الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين ويقول المولى ولنبلونكم بالشر والخير فتنه ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi xam ngeen ne sunu réew mi nu nekk waxtu yu nekk nattu yi ak jafe-jafe yi day yokk waaye wàññeekuwut saa yi nu amee gouvernement ànd ak moom ay at ñu jàpp ne régleel nañu sunuy problème du ko rek la ñu folli indi ñeneen waxtu wu nekk ñuy changé ay nit di indi ay nit te dara du rek law day gën a yokk rek waaw kon est-ce que ca nit ña la wala ci ñun la sunu borom subhanahu wa taala moo nuy tont ci ñooñu la wala ci ñun la ibtilaaun lil mujtama nattu yu yàlla di nattu xeet yi ak xeet wi li war kon ci xeet wi mooy an yubaadira li taxamuli masuliyatahu amaam allah limaada li ann al ibtilaa alwaan li war ci xeet wi mooy nu tuub dellu ci yàlla yenu sunu responsabilité dellu ca yàlla ndax nattu ay façon façon la nattu juróom-ñaari xeet la buñ xamee ci juróom-ñaari xeet yooyu di xeeti nattu ñun ana ban leen ci moom rek sunuy jafe-jafe dana faju xam ngeen ne semaine bi bu njëkk ba lu doon jooy mooy courant semaine bii yépp lan la réew mi jooy mooy ndox te waxtu woowu ñuy jooy ndox ci jamono jooju la leen yàlla envoyé woon ndox ban ne ndox mi doy na ëpp na ba ay nit sax manifesté wu taal ay pono ndax ndox mu ëpp ba sax ñu tar ñu tëral plan fendi ñu ne armée bi na ci dugal loxoom ndox mi doy na ca jamono yooyu yàlla téyewaat ndox mi ñëpp jógaat di jooyaat di marsaat waaw kon doomu aadama yi ñoom ñooy ñan kon mbir mi fan la nekk kon mbir mi nan la qutila al insaanu ma akfarahu doomu aadama bu seddee mu ne sedd na bu tàngee mu ne tàng na bu xiinee mu ne lëndëm na bu xiifee jooy bu feebaree du muñ kon doomu aadama mooy kan lu am mu jàmbat ndeke ci natt yooyu nekk ay façon yi nattu am na ci ibtilaa boo xam ne li sabri yàlla da leen di nattu pour ngeen muñ am na ci ibtilaa boo xam ne li sukri yàlla day natt waa ji pour mu sant am na ci ibtilaa boo xam ne lil ajri yàlla da lay natt pour fay la am na ci natt boo xam ne li tawjih yàlla da lay natt pour orienter la am na ci ibtilaa boo xam ne li taadib yàlla da lay yar da lay natt pour yar la am na ci boo xam ne li tamxiis yàlla day natt pour segg am na boo xam ne li taqwim yàlla day orienté kon juróom-ñaari natt yi ñun waa Sénégal ban lañ ci moom ñun ñëpp bu ñu waxee dëgg mooy noo ngi moom bu juróomeel bi yàlla nattuwunu pour nu muñ de déedéet parce que mënunoo muñ yàlla nattuwunu pour nu sant déedéet parce que du nu sant yàlla yàlla nattuwunu pour faynu parce que liggéeyunu lu nuy fayee yàlla nattuwunu pour orienté wuñu orienté ñu parce que teguwuñu ci yoon bu nu yàlla di orienté waaye ibtila li taadib yàlla daf nuy nattu pour yar nu parce que réew mi jàdd jàdd dafa bari mooy yàlla dafa bari biir ak biti zahir ak baatin lu feeñ ak lu nëbbu mooy gi dafa fees comme ni ko yàlla di waxee fil barri wal bahr bu loolu amee nag sunu borom moo wax ci quran wala nabluwannakum bi char wal xayr waaye fitna yàlla neen dama leen di teg fitna xam nga sunu dellu see rek xool xam ne lii ci yàlla la bàyyee ko benn teew bu toj ay semaine Sénégal gi yëpp kenn mënu ci dara ba nuy woote wallu France ak Chine réew mi yëpp ànd technicien yëpp beneen bi mooy lii lum ñuy jural mooy ja ba léegi ba léegi ba léegi amuñu indépendance ba léegi mënunoo yóbbal suñu bopp mënunoo dem sans nit ñu weex ñi mënunoo dem loolu lay tekki mooy moomunu suñu bopp lu lay wan ne moomunu suñu bopp mooy mënunoo fexe ba amal courant suñu bopp ñaata at ba léegi ñu ngi leen ñu ngi ci lëndëm bi ba léegi courant mi ngi coupé ñaata mun noo fexe ba naan sans tubaab yi ñëw defar tiwo bi kon la kon suñu jàng bi suñu université yii est-ce que war noo xoolaat programme bi su fekkee technicien yi ñu am lépp ci Sénégal ñu mag ak ñu ndaw mënunoo defar tiwo nan xoolaat jàng bi nan xoolaat technicien yi nan xoolaat réew mi est-ce que naxu nunu beneen bi gën a doy waar mooy ana alalu réew mi anamu ana alal ji milliards yi ñuy dégg te li ci doy waar mooy ministre bu ci nekk làq ngay milliards gouvernement bi passé ay milliards lañ leen di toppee ñi yéeg balaa ñoo yéeg ku nekk def nga sa déclaration li tuuti ki ci gën a tuuti am na 3 milliards waaw léegi lu tax mënuñoo defar lii ku nekk na laaj suñu bopp laaj bi mooy yàlla moo nuy yar yar la bu nu yàlla di yar lu tax yonent bi nee na kayfa ma takunu yu walla bikum nu ngeen mel noonu la leen di gouverner nu ngeen mel yàlla ne nit nu mel noonu lay indi teg seen kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax hadis bu doy waar mu ne bu ngeen bàyyee yoonu yàlla yàlla dina leen nattoo ñetti mbir ñu ne ban moo njëkk mu ne yusallitu llahu alayhim sultaanan jair yàlla da leen di nattoo buur bu bandi buur bu saay-saay buur bu kaccoore mu leen di dóor kenn du ci mun dara ngeen di ñaan yàlla yàlla na alku yàlla na dee yàlla nee na ma gën ko may wérgu yaram ndax mu mun leen a dóor bu baax ñu ne ñaareel mu ne yaxrujuuna min addunia bi gayri iman su ngeen di dee du ngeen yóbbaale ngëm yàlla ndax day fekk ngëm yàlla dafa set ci xol yi iman moo fa dul am kuy dee rek leneen ngay doyu baale sa xol lu dul yàlla ñu ne ñetteel mu ne waye zilul barka min kasbihim yàlla day dind ci seen dund barke est ce que ñett yi amul réew mi mbon moo bari loolu ngeen di gis nii taw bi di taw suuf si du ko wann bu njëkk suuf si day asamaan day taw suuf di wann léegi da ngay taxaw sa kaw balcon gis ndox mi bërëngu di def wala ngaan di dem du suuf si du ko wann nit ñi waroon xalaat ci loolu ñaata at ñuy jooy mbënd mun ta réglé wu ñaata at ñaata at ñuy jooy courant mun ta réglé wu tey jii ndox mi yokku na ci suba leneen dana yokk du problème mu ay nit du problème mu gouvernement mbirum yàlla la sunu tuubee dellu ci yàlla yàlla indil nu nit ñu baax ñu gouverner nu sunu melee ni continuer ci caaxaan yi nekk ci réew mi nga xam ne guddeeg bëccëg caaxaan moo fi nekk bu fekkee dëgg la ñuy wax góor ak jigéen mag ak ndaw ku xam ak ku xamul sëriñ ak taalibe ñépp dëng réew mu mel noonu fu nit ñi jëm réew moo xam ne chaque jour ngay dégg lu dagg lu dagg sa nopp wala lu tëm lu bënn say tympan ci mbon ci ay jullit kon nanu xam juróom-ñaari nattu yi ñun lan lañ ci moom suñ ko xamee ñu dellu ci yàlla yàlla day nattu ay nit li sabri pour ñu muñ wala nabluwannakum subhanahu wa taala nee na dinaa leen nattu dinaa leen nattu man yàlla subhanahu wa taala wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf waljuu wa naqsin min al amwali wal anfusi walthamarat ba mooy nattu muñ waaye wa basjuri sabirin yàlla nee na léeg-léeg ma nattu leen ci alal yi léeg-léeg ma nattu leen ci bakkan yi léeg-léeg ma nattu leen ci meññeef yi léeg-léeg ma nattu leen ci jur yi waaye boobu bégalal ñi muñ boobu muñ moo koy dindi nattu la bu bàyyeekoo ci yàlla da ngay muñ beneen nattu li sukuri pour sant sur bu sunu borom subhanahu wa taala ne fa amma al insan ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naamahu doomu aadama bu ko yàlla nattoo ba ubbil ko buntu alal nattu la ndeke yàlla bu la mayee alal ndeke yow lan la lan la bëgg mooy nga sant ko yow kon yàlla day indi nattu alal waaye xoolal tey ñun yàlla ku may alal lan la war a njëkk a def sant déedéet day jubilé organiser ay xumbal ay fuural ay pojom commencé commencé commencé daanaka nit ñi sax mën ngaa wax ne yàlla bàyyi leen nii moo gën ndax bari na ku ci ne bu ma yàlla maye alal bu la yàlla maye alal nga toxu koñ bi nga dëkkoon dëkk feneen tent say oto sa vitre oto yi nga tent ko changer sa numéro portable changer ay xarit changer milieu gis nga jàkka ji moom kenn dootu la fa gisati tey ci Sénégal boo doon lim jàkka yi jàkka joo dem dina néew nga fekk fa borom alal bu fay jullee dana néew te nattu la woon sunu borom nee na pour ngeen sant ibtila yàlla may la day lay xool pour nga sant wa amma bi ni'amati rabbika fa haddis i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur yàlla nee na jëf leen waa kër comme waa daawuda na ngeen sant yàlla waaye nit ñi néew na ci ñuy sant yàlla beneen bi mooy ibtilaa lil ajri yàlla da lay nattu pour fay la mooy ñooñu di feebar di tëdd ay weer ay at dañ doon dox mun a tunu dañ doon toog mënatuñu léegi tëdd dañ doon lekk dañ leen di lekkal ñun yàlla da leen di nattu pour fóot leen pour fay leen lil ajri moo tax yonent bi bu nit feebaroon bu ko seetsee lu muy wax laa ba sa tahuur insha allah du dara yàllaa lay fóot boo setee rek insha allah yàlla delloo la sa sago beneen nattu bi nag mooy li tawjih yàlla da lay nattu pour orienter la yonent yàlla Moussa dafa nekk ci digg àll bi ànd ak soxnaam ànd ak njabootam ànd ak jur yi daal di réer yàlla natt ko mu réer lan moo tax yàlla natt ko mu réer parce que yàlla dafa am lu mu namoon keroog pour orienter ko mu jublu si ci boroomam mu dem ba seen safara ci àll la nekkoon mu gis garab guy tàkk mu ne ah waa këram xaar leen fii ma dem ci garab gee ma fekk fa benn waay ma laaj ko fan la yoon wi nekk mu jubanti ma wala mu may ma benn xal ma indi ko fii ñu mën a dajale ay matt taal pour mën a jaaru imkusu hina inni anastu naaran imkusu laalli aatikum biha bi qabas bi mu ñëwee ba jib safara si ndeke yàlla da koy doon orienté ne ko yaa Muusa inni ana allah la ilaha illa ana maay yàlla amul benn buur bu ñu war a topp bu dul man yàlla daal di koy jox orientation yi juróomeelu natt mooy li taadib yàlla yenn saa yi day nattu ay nit jël yar teg ci seen kaw mooy comme nun ni fi mu nekk nii gis nga ni nu yàlla fitnaalee fan yi ñépp a sonn yàlla nattoom xejul ci ñun waaye lii ay flèche la yum ñuy joxoñ rek pour ñu mën a dellu ci yàlla ñu xam ne du ay nit waaye moom yàlla la yàlla bu nammee sonal ay nit kenn mun ta fexe ba dun sonn yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dafa wax ci xadis qudsi ne ko yaa abd yow sama jaam yow sama jaam yow doomu aadama man yàlla dama namm nga namm fa in aataytani ma urid aataytuka ma turid soo ma defalee man yàlla li ma la bëgg ma defal li nga bëgg fa in naazatani fi ma urid wallahi yow doomu aadama boo ma xëccoowee boo xëccoog man ci man yàlla li ma bëgg atbaatuka wala yakunu baada dalika illa ma urid dinaa la sonal ba say baqata ne bàcc nga sonn say mbagg damm ñu yenu la suuli àll ba du mujj lu dul man yàlla li ma bëgg rek mooy am aqulu ma tasmaun واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله juróom ñaareelu nattu bi mooy li tamxiis yàlla day nattu yenn saa yi pour segg alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ngeen di wax ne ay jullit ngeen rek ma bàyyi leen noonu déedéet day yomb yàlla nee na foog ma nattu leen foog ma testé leen ma xool ndax jullit gi ngeen di woote dëgg la moo tax gis nga day leer bés bu nekk nga gis jullit buy jëf-jëfu yéeféer mu leer na ne nattu yàlla yi moo dal ci ki yàlla ko doon natt jullit boo xam ne munul muñ dara te yàlla ne na dama koy natt pour xool lii muy wootewu ndax lu dëggu la bu nu yaakaar ne ñun dañ naan jullit lan rek yàlla bàyyi nu dugg àjjana kon de kon kon de yomb di yàlla neen damay indi natt yi pour ma segg li tamxiis ñan ñooy jullit ana ñan ñoo nangu def li ma wax ak bàyyi li ma tere su ko defee bu tame bi ñëwee rek yàlla lay am groupe bu mu seppi am ñu mu bàyyi ñu daal di tëmbaxu juróom benn juróom ñaareelu natt bi mooy li taqwim yenn saa yi yàlla nattunu pour lan pour xool fan la nu toll fan la pas-pas yi toll waaye loolu lépp natt yépp lu koy waral mooy benn bis rek li qays wax ibnu abi xaazim mu ne qaala abu bakrin radiallahu anhu wa inni samitu rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam yaqul inna annas ida ra'u alzalima falam yaxuzu ala yadayhi awshaka an yaumma allahu taala biiqaabin wa inni samitu rasula allahi yaqul ma min qawmin yacmalu fihim bilmacaasi summa yaqdiru summa yaqdiruuna ala an yugayiruu falam yugayiruu illa yushaka an yaummahum allahu bi iqaab abubakrin siddiq nee na maa dégg yonent bi ne ay nit bu ñu gisee tooñkat ñu gis saay-saay ñu gis ku jàdd ñu gis moykatu yàlla mu ubbi ak mooy ci koñ ci gox ci dëkk ci rajo ci télé mu koy wax wala mu koy def nit ñi demuñu teye ci loxo waajooju ne ko taxawal yàlla nee na mbugal mi bu wàccee ñëpp lay laal loola nu dal day tey toog sunu télé di seetaan lu bon kenn du wax ubbi rajo yi di dégg lu bon kenn du wax génn ci mbedd mi gis lu bon kenn du wax nekk ci biir kër yi gis ko duñu wax moo tax mbugal mi bu wàccee ñun ñëpp mu laal nu yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu nettali nee na dafa am benn dëkk bu meloon nit nu nu mel yàlla ne jibril dama nga àll dëkk bi jibril na cëpp delluwaat yàlla moo gën a xam de yàlla mu ne jibril lu xew mu ne ko dama ne cëpp gis fa ku baax yàlla kooku bokk ci yàlla mu ne demal nga njëkki ko demal nga njëkke waa jooju nga naan dafa baax jibril mu ne yàlla lu tax mu ne parce que dafa gis ñu may tooñ te kanamam soppeekuwul allahu akbar ñuy tooñ yàlla te kanam du soppeeku fu ñu jëm ñun loolu mooy suñu problème moo tax gis nga courant yi di coupé ndox yii bu nu deltuwul ginnaaw kanam la jël leneen mooy ñëw xam ngeen courant lan doon jooy ba càng mbënd ñëw ñi ñuy jooy léegi amatul lu naan leneen mooy ñëwaat parce que yàlla moo ko wax bu nu fàtte ne yàlla moo moom addina bi du du du programme kenn yàlla moo ko moom moo moom addina xoolal misaal rek borom kër bu tabax këram ba pare def lépp doom yi ñëw ci kër gi ne duñ jubóog seen baay kër googu est-ce que dina neex mbokk jullit yi soxna si ne lu ma neex def xale yi ne lu neex def kilifa gi toog fële bu waxee kenn du def kër googu est-ce que jàmm dina fa am addina bi bu ñu fàtte ne yàlla moo ko moom yàlla moom moom suuf si moom asamaan si donte ne yéen a ngi dégg ay nit ñaan ñoo ko moom waaye yàgg yàgg ku ngeen dégg ñu ne mooy nangam nangam da ngay dégg yàgg yàgg dee na dem leen sul ko yàlla moom mu ngi fi kon yàlla moom moom addina bi ñun ay jaami yàlla lan yàlla moo nu fi indi rëddaw yoon ne jaar leen ci yoon wii sunu muusee ñu jaar fa ñu am jàmm bu nu iblis naxee nag ne nu yoon wi nu yàlla di jaarloo dafa gudd teggi leen nii moo gën a féex moo gën a sedd moo gën a yomb ñu bàyyi yoonu yàlla jaar yeneen boobu yoon boobu dañuy doxa doxa dox ba suñuy baqate ne bàcc te li nu bëgg duñ ko am te mooy li nu dal nii ñun waa Sénégal lu nu nax nag mooy Sénégal jàmm rek moo fi am ndax nit ñu baax ñi ndox mi manqué ana nit ñu baax ñi dul ñëw defar tuyau bi Irak ñoo ñu gën a baax ay nit yu baax Seydina Ali fa la tëdd jàmm amu fa ay millions yi nit ñuy xëy di dee Afghanistan kazalik du problème nit ñu baax nit ñu baax ñu baax nañ la ñu baaxoon yóbbaale nañ ko wallahi munuñ ñu cee may ndax yàlla moo ko wax tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yaamul yàlla nee na ñi baaxoon démb yóbbaale nañu seenu mbaax yéen ñii la ñuy laaj seenu mbaax bu ñu amee ay maam yu baax te ñun baaxuñu Sëriñ Tuubaa nee na alxayru laa yanfau illa li failihi wa charru laa yaduru illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul ko ko def sëriñ bi ma wax loolu lu baax du jëriñ lu dul ki ko def lu bon du lor lu dul ki ko def benn waaye mënul def fëleel bonam yow ñu jàppale yóbbu la kaso tëj la ñu wax ñu ne sa sa frère bi moo def lu bon yow la ñuy tëj déedéet kenn du dem fële di julli baax yàlla jël ko taabal ko safara kenn dem fële def lu bon yàlla dugal ko ajjana ñu wax ñu ne kële mooy dañu remplacer sa yëf loolu du maandute ku baax sa bopp nga baaxal mu ngi mel ne boolu ceeb bu ñu teg rek ñu ne ñëw leen ñu añ ku tibb def sa gémmiñ di nga suur waaye ku tibb def gémmiñu jàmbur ba bool bi jeex bul la dimbaliwul du baax nanu góorgóorlu nu tuub sunu tuubee yàlla defal ñu jàmm yàlla moo ko wax walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw mu ne la fatahna alayhim barakaati min yàlla neen bu nit ñi tuubee rek ma ubbi robinet asamaan yi xéewal gi yëpp daal di wàcc waaye bu nit ñi melee nii nu mel di tuddoo ay jullit te doo gis mbirum jullit da ngay gis Sénégal ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman l'islam tumaranke fi doo gis l'islam ci mbedd yi doo dugg ci kër yi fekk ko doo xool benn télé ba gis l'islam doo déglu benn rajo ba dégg l'islam te ñu ne ñun ay l'islam lañ yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik ya hayu ya qayyum birahmatika narju fala takilna ila anfusina tarfat ayn اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله